ci la ñemee nag ci barab bii nga xam ne soxna si dëkk néeg bii ngeen di gis ci la nekk moom ak njabootam yëpp commission sociale jël en charge ne dañu koy tabaxal néegam waaye tabaxal ko ay wanag loolu nag li ko may commission sociale mooy recensement bi nga xam ne ñu ngi doon dox di saytu ak di nemmeeku ñi gën a yayoon dimbal lii nag bu ngeen gisee commission sociale ci njiital Serigne Muxtada moom Serigne Abdul Fata ànd ci ñu di ko wane dañoo bëgg ñëpp xam ne barab a ngi nii ak ay baraba ngi nii yoo xam ne nii yayoon nañu ndimbal. maa ngi fi tuxu si biñ korite ba ci suba ga laa fi tuxu si jóge Dakar laa nekkoon doon luye luye doon luye sonn ak samay xale ma ñëw fi ma ne man daal damay dem Touba su ma demee ñaan fa kër bi ma ñëwee wàcc Saam Jaxate ku ñu wax baay gi sax moo ma àndaale fi moom tamit mu am ci pàkk yi mu jàppale ma ñu ànd dem ci sëñ bi heure bi kera ñu bindu biñ demee ma ne ko damaa bëgg pàkk. waaw mu mu jàppale ma ba ma am pàkk fii nii bi ma ñëwee fii waatu Touba ci kanam yi bi du ñëw damaa añ ba pare ñu ñëw fii sëñ bi ak ñu wàcc ni ci oto bi bi ñu ñëwee sax damaa yaakaar ne xam naa dafa am ko ñuy laaj ñu wàcc ñu nuyoo ñu ni fii fan la man leen fii de Tawfekh bu la ñu ne ma ñun de dañoo yoroon ay ndimbal yoo xam ne seeni dañ ko doon joxe ba mu des loo tolloo fukki nit léegi dañ lay jël noo tudd man leen ab sa seen ñu ni ma dañ lay jël léegi nga indi yeneen fukki nit ma woo sama rakk bi nekk fee jibi waa koñ bi ñëw ñu jëldu sëñ bi daal di toog am yërmande daal di ma ne yow fii nga dëkk ma ne ko waaw mun ma yaa kër gi ma ne ko waaw mu ma ana sa néeg ma ne ko mi nii mu ne fii ngay tëdd say xale ma ne ko waaw mu ne sa waañ ma ne ko ma mun ma waañ bi fi nga fi ngay toggee ma ne ko waaw mun ma ana sawa nag ma ne ko ma mun ma ah soxna si loolu doy na waar de ñoom ñii ñëpp ñu jàppale ma ñu yërëm ma ñu ne ah lool de doy na waar doy na waar sëñ bi bin bindee ba pare mun daal di ñëw jóg di dugg ci néeg bi fekk matlaay sax dama ko weeroon ñaari matlaay yu ndaw mu ne ma ana sa lal ma ne ko mi ngi nii mu ma fi ngay tëdd say xale ma ne ko waaw mun ma su sooba yàlla de dinañ la jàppale dinañ la jàppale su sooba yàlla nam ko waxee nag wax dëgg yàlla noonu la ko defee ay fan lañ am mu ñëw bi nu ñëwee mu andi ñu andi eh, ñaari eh, otoy suuf andi ñaari eh, toni ciment andi moolkat yi ci su ci ginnaaw suba gi la ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu mool fi ne nii euh, ñiy tabax a ngi nii ñiy tabax ngi nii ñu ngi jàpp bu baax la mu waxoon def na ko wax dëgg yàlla moom li ma ko ne sëñ Fallou sa maam doo doo xotti saa du tas yaakaar du daw ko laaj waaw. ndaxte am na ci kër yoo xam ne sii sax man sama garab gi maam ñi sax am na ñu ko amut ay mbaar la ñuy def wala ñu yendu ci néeg yi amuñu ay garab ca tàng na. bëccëg gi dañuy sonn doo xam ne ñuy def surtout maanaam fi mu ne koor gi nit ñi dañuy sonn bëccëg gi doo am nooy def ak say xale am na ñooñu amuñu ay garab néeg yi ay mbaar la ñu yor ay néeg yu doy waar doo ci mën a nekk ak say say doom doo am garab doo am dara tàngaay bi sonn nañu trop ca néeg yi doo ci man a yendu ca néeg yi sax ñëpp ak sama néeg sama néeg yi lañ yor ñun ñëpp ñoo yem ñuy sàkku ndimbal ñun ñëpp ay sancaan lañ ñëpp ak mën a yem dañuy góorgóorlu rek bëgg a dëkk ak sëñ bëgg sëñ ñun ñëpp nag am nañ fi ay kër ñaan fi yàlla nekk ak sunu njaboot ñun nag ñoo ngi ci seen ginnaaw ci Touba ci kanam lu daal ñoo ngi ci seen ginnaaw ci lu ngeen doon ne ci ñun ñëpp ñu ngi ci Touba ci kanam. ay wax waa ci kanam fii soxna Ndak Diouf sax yor na ci Touba ci kanam yi carte yi man yo waaw yooyu noonu toujours man ma bëgg cee jël mi ngi ciy dox bu baax takk ndigam di ci jaay nit ñi tamit ñu ngi ciy jël. waaye dañoo bëgg daal ñu jàpp ci Touba ci kanam man nag moom jàpp naa ci man maa ngi nii man man maa ngi ni ci biir maa ngi dugg naa ci tuubaa ci kanam léegi daal moom man maa ngi seen ginnaaw lu ñu war a def di ko liggéey ci Touba ci kanam man maa ngi nii maa ngi yeesalu ngébbal nag ki sëñ Mourtala di ko sant di ko gërëm waaw waaw di ko sant di ko gërëm maa ngi uh, taxaw daal ci ginnaaw Touba ci kanam lu ñu def maa ngi ci biir su sooba yàlla ma ci tamit Touba ci kanam moom ñëpp la ñor ñu dëkk si sëñ Touba ñëpp la tuubaa ci kanam ñor fi mu ne nii ñëpp a dagg ndaag Diouf soxna ndaag Diouf mii di jaay eh, Touba ci kanam yi dañ ko waaw yi wecceeku Touba ci kanam yi ñëpp a siy jël bëgg a jàpp ci Touba kanam ñor na ñëpp wante li ma bëgg nag ñu takku ànd ak Touba ca kanam lu ñu nekk nu nekk ci ak ñoom nekk seen ginnaaw ñoo ngi seen ginnaaw lu ngeen nekk ñoo fii ay ay ay la fi nekk. waaw fi nekk. fi nii amagul amul lal waaye ay ay ay briques la teg nii. jëlum mat teg ko ci ak i ñax. waaw ñaata at kii la fi dëkk. ñaata ñaata at dëkk fii ci néeg hmm. nit ñooy yeewoo fii ci néeg bi. Saïd man ak sama ñaar doom ñoo fi nekk ñi ci des dama leen a dénkaane si fee ndax xajuñu fi ñëpp ñu taar nañ ñu des ñëpp nag dañ fi xaju léegi sa ñu ngi sa kër mbokk yi nga xam ne fii daal ku tabax nga bëgg. tax. ko dafa liggéey bii la Touba ca kanam jaarale ci seen commission bu mag bi ñu duppee commission sociale ci njiital sëriñ Mouxtada moom Serigne Abdoul Fattah liggéey boom solo bii lay def nii it lañ koy defee dañuy daw topp dëkk yi ba yegg si ci barab laaj fi nu mu tudd ñu wax turu dëkk ba ngeen xam ne fii ñu fi nekk ñëpp a yeyoo du daanu nag dajul suuf gis ngeen bi mu dimbalee ñëpp it am na ñoo xam ne amuñu woon am na lum leen boole ngir ñu séddale leen ko ci ceeb ci yére ci suukar fii nag mooy Tawfekh Bousso bari na ay barab yu mel ni yu wër nomba dëkk bu sell bi di Touba Touba ca kanam nag wane gi muy wane lii lim ci jublu ngir xiirtal nit ñi ci ñu jóge ci taax yi ñëw fekk si ñi dimbale leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi seriñ Serigne Mountakha loolu la woote Serigne Touba ci loolu la mës a nekk kon liggéey bu am solo bii moom la commission sociale di liggéey di ko yëgal liggéeyal ci kanam di ko liggéeyal jullit yëpp nag kon nag na ñëpp ñëw ànd ak commission sociale ngir yu mel nii ñuy mën a ànd di ko saafara barab bi nag gis ngeen ko seen néeg yi seen duus yi seen waañ yi bi ñu yegsee it doléance yi fu nekk lay jógee kenn ku ci nekk ngi kar Serigne Mourtala kii ne ko ñun ay seng mooy sunu jafe-jafe kii ne douche mooy sunu jafe kii ne waañ mooy sunu jafe-jafe kii ne xool leen sama néeg bi sama njaboot gi yëpp ñoom laa ciy tëddal ñooñu nag Serigne Touba rek leen fi indi kon mbokk yi nañ ñëw waar wi yaatu na te yaakaar naa ne li Serigne Touba baaxee taalibeem yi xajuñ ci barab yu mel nii kon fii tawfeex buso la waaye tawfeex buso yu bëri nañ am nañ ci ñeenti xibla yëpp nag ay tawfeex buso yu dul jeex loolu rek la Touba ca kanam ak commission sociale di jéem a dox te gis ngeen kenn tegtalu leen barab bi dañoo ñëw ba gis lii xam ne lii kat war nañ koo ne ngir li mun Muntaxa wax ci jàppale gi kenn ku ci nekk bàyyi xel ne boo yoree sa ndimbal bu la neexee sax bu laaj Touba ci Kanam jëlal ñeenti xibla yi bu mu la ci neexee rek nga def ni commission sociale boo yeggee ba ci kaw nga jàdd sa càmmoñ wala sa jàdd ndeyjoor di nga fa fekk ñoo xam ne lépp lañ manqué mbokk yi kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp. ñoom lañ doon woo tey ñoom lañ doon jox ceeb baak suukar baak. ak waaw ci suba. ak yére bi waaw. waaw ak 2000. Euh, léegi nag xam nga comme dañoo ñëwoon doon seen si waale euh, kii tolluwaayu kii te léegi bëggu ñoo ñëw ba agsi hmm. am ñu jóge waat seen kër ñëw ci ñun. Hmm. te ñu am luñ leen luñ leen luñ leen jox. waaw moo tax ñuy daal fi yére yi. ak ceeb bi ak suukar. léegi ñi ñi fi jot a ñëw ñi fi jot a nekk nii te amuñu woon. ñi amoon moom bokkuñu. ñu jot ñu ñu ñu fi jot a ñëw te amuñu. waaw ñoom la ñuy séddale. ñu ngi koy séddale waaw. bu dee yëre yi nag ñoom ñi amoon. mën nañ cee amaat. bu fekkee ne ñoom ñi amoon. bu fekkee ne am na ba des. waaw waaw waaye ñi amagut moom nañu am ba pare. dëgg la dëgg la bu desee nag ñoom mën nañoo amaat ci yëre yi. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle. et religieux Rafah TV ñëppay dañ agréer